tax rek kii di Mimi Touré daal di si gis boppam bu ñu sukkandikoo si la mandat ak les échos ne rek kii di président Macky Sall dafa rek daal di toroxal kii di Mimi daf koo gàcceel ndaxte rek en tant que teg de liste campagne bay bëgg a dee nga sepp ko sànni fële loolu day nekk lu méttee métti tax rek kii di Mimi Touré daal di xam ne rek ne moom voté wul. daal di maire jug dem yoonam moom Mimi yemul fa dafa dem direct si page Facebook am amoon na benn photo boo xamante ni mook président Macky Sall ñu sa àndoon mu defoon ko rek profil am wante nag kii di Mimi Touré daf ko rek daal di changé si changé loolu nag tax ñu bëri yaakaar na rek kii di Mimi Touré dafa rek daal di quitté bennoo Bokk Yaakaar ngir rek daal di créer partie boppam.